dafa mel ne fii ñoo gën a yëngatu waa Thiès asalaamaaleykum tey merci beaucoup merci beaucoup merci ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi leen di gërëm di sant balaa may dugg ci waxtaan li ngeen ma may ma rendre hommage à deux personnes bi ci njëkk mooy Oustaz Sidi Lamine Niass dinaa ko rendre hommage parce que dafa am rôle bu ama am solo boo xam ne joué na ko ci démocratie sénégalaise joué na ko ci bay nooteel ak bay pouvoir wu xaalis def ma la wax lépp luy média ci Sénégal dinaa ko rendre hommage parce que dix jours ci gannaaw muy vendredi bi bële mu may woo ñu jokkoo ci WhatsApp may woo ni ma fekk aéroport Bruxelles ci cadre tournée bi ñu waroon def waroon jóge foofu dem Suisse mu ne ma dama laa woo pour ñu waxtaan parce que fii ñaari weer élection yi commencé te rôle bi ma daan joué fii Sénégal ci démocratie ak ci pluralité médiatique ak bay ñu fexe ba jël alalu askan wi. topp ci jox ci ñenn ñi nga xam ne dañoo ba médias yi war a féete ñoom ñëpp benn moo tax ma la doon woo pour wax la ni rôle bi ma daan joué mooy fexe ba couvrir de manière équidistante amul pouvoir amul opposition ba ku nekk ci yéen am voix au laa bëgg a joué waat te bu fàttali naa événement bu ngay di def manifestation bu ngay di ma yebal fa équipe buy ñëw tourné ko jàllale ko ba Sénégal yëpp gis ko. ma rafetlu ko ko ne ko bu soobee yàlla le 3 ñibbi Sénégal le 4 incha allah bu ma toppaloo ba ngoon dinaa la seet si joxaale la benn exemplaire ci suñu livre ñu xool ni ñu waxtaanee ma ñibbi si le 3. le kat ñu yee ma dix heures ma li yàlla def kon jaar nañu rendre ko hommage te di ñaan yàlla fee mu jëm gënal ko fii mu jëm yal na yàlla yaatal bàmmeelam fayfal suuf ci kawam ñaareel bi mooy suñu frère patriote Birame Souleye Diop ñëpp xam nañ ni ñëpp xam nañu mooy coordonnateur départemental bu Thiès kon ñëpp xam nañu ni lii bu lii amee liggéey da cee équipe bu yaatoo yaat ndax su tey jii kon ñu fomm ko waaye ñëpp xam nañu ni lii amee loxoom feeñ ci bu baax a baax a baax da cee dem ba yàlla natt ko mu jëlee ci moo tax ba nga tudd Dakar teew fii tey kon ñu ngi koy rendre un hommage appuyé ci engagement ci détermination patriotique di ñaan yàlla rétablir santé bi mu gën a gaawee mais ku wéru yaram ndax mu mun a jëlaat liggéey bi fi ko bàyyi woon jublu ci 2019 mbokki Thiès ñu leen nuyu di remercier ñi fi teew ñëpp di remercier nag parti opposition yi nga xam ne ñun ñoo bokk géewu politique bi waaye rawatina ñun ñoo bokk boor bi ñu far tey kenn ku nekk mën nga am sa agenda kenn ku ne am nga sañ-sañu ne man candidat waaye ñoo bokk mbébét ci nu ñuy def ba natt lii xam ne tegu na ci Sénégal te natt bi tudd Macky Sall naka la ñuy def natt boobu ñu teggi ko ci ñun Pastef bi ñu sosee ba léegi bi ñu sosoo ba léegi lépp lu ñu mës a def fii pour opposition bi ndax bokkoon nañu ci membre fondateur mango mango wàllu Sénégal ñëwaat nekk membre fondateur ci front moo tax toujours message bi wax suñuy militants ak suñuy sympathisants bu leen kenn dugal. ci ay querelle entre opposants bu leen kenn dugal ci ay xasante entre ñun ak ñi ñu bokkal opposition bi parce que duñu suñuy adversaire nañu xam ni loolu bu ñu ko defee kenn rek la ñuy liggéeyal mooy moom moom Macky Sall kon nañu def front bi nga xam ne moom la ñu defoon ba jëlee fi Abdou Diouf moom la ñu defaat ba jëlee fi Euh, euh, régime Abdoulaye Wade même pro bi wala lu ëpp doole lañu war a def tey ñëpp ñi bokk ci opposition bi daje ci pro boobu mun a xeexandoo pour la transparence dans le scrutin mun a boole suñuy doole ba Macky Sall carte d'identité yi nga xam ko téye ko di ko jox ñi nga xam ne ko ñii ñoo ko fas mu joxe ko ñu fexe ba. fichier yi nga xam ne moom doon ko xam ak ministre de l'intérieur mu joxe ko ba société civile xam lu leen ci biir parti de position yi xam lu leen ci biir kenn ci ñun ko moom dong suñu boolewul suñu doole waa ji dina def lu ko neex déclaré vainqueur ñu toog fii di xoole moo tax ñun ñëpp war nañoo vigilant ndax ba ci réseaux sociaux yi ba ci site internet yi da ngay gis xam ne leer na ma ni sous le couvert de l'anonymat li ma leer ba leer mooy affaire la ñu bokk waaye su ñu génnee information ci PDS wala ci biir wala ci Thierno Alassane Sall wala ci keneen ak keneen ci réew mi ñu bind ba pare ne ñoom waa Pastef la ñu saaga ñoom lañ ci ut mooy fexe ba féewale opposition nañ ci bàyyi xel di remercier yi nga xam ne nag suñuy xaritu bopp la. parce que yàlla boole suñu yoon depuis élection législative wala lu ko jiitu ñu bokk suñu coalition te docteur Sall léegi wax ci seen tur ñoom muy ku ci RND muy ku ci euh, yoonu askan bi muy ku ci pacte bu bureau de ville muy mouvement citoyen ñu àndal yëpp te bokk coalition àndoon ci législative parce que yéenewaat ànd ci élection présidentielle te di yaatal mouvement boobu ndax des dizaine de mouvements et de partis politiques am nañ intérêt ci li mbokku Thiès loolu weesoo dama am mbégte ci taxaw fii tey parce que taxaw fii tey doomu Thiès la bu ñëw Thiès fekk ci mbokku Thiès waaw. fan yële damaa ñëw bi ci jàmm bi biñ jógee ci Tiwaawan jaar fii ci. suñuy kilifa di waa famille Yékini Yékini bi ñu toogee di waxtaan mu am kilifa bu doon lim candidat Thiès waay mu lim Idrissa Seck ma ne ko comme sama mag la sama xarit la Thiès la mu lim Thierno Alassane ma ne ko sama xarit sama mag la mu lim Thierno Bocoum ma ne ko sama xarit la sama morom mu lim Jules ma wax ko lu mel noonu bi mu liggéey ba daaneel dama Thiès moo ëpp candidat ci candidature bi bokk candidat à la candidature ko déet sëñ bi am na boo fàtte rek ndax ku juddoo Thiès saa yi waa Xombol kenn mënu laa génne ci Thiès ma ne ko kon yokkuma ci liste bi ndax ci laa bokk te du ma candidat wu Thiès bu ndaw nag ci laa bokk te du ma ci candidat bu ndaw kon dañoo ñëw suñu dëkk fekk fi suñuy mbokk fas yéene waxtaan ak yéen ci li ñu bokk muy Sénégal ak ci li ñu bokk muy Thiès Thiès du région bu ndaw mooy ci superficie mun nga nekk ñetteel wala ñeenteel région waaye ci population mooy deuxième région du Sénégal ak presque deux millions d' ndax ñu ngi am huit un million huit cent quatre-vingt-neuf mille habitants mooy deuxième région ci population waaye mooy deuxième bastion ci wàllu électorat ak nombre nit ñu war a mën a wote kon Thiès du région bu ndaw bu yemoon foofu nag ñu ne ah su Cees amee loolu te ñàkk leneen ak leneen rawatina nag la jëm ci koom ñu war a jaaxle waaye gis ni Cees pratiquement mooy première région ci potentialité économique fii ci Sénégal léeg-léeg war naan est-ce que waa Thiès ñoom seen bopp xam nañu lan mooy potentiel Thiès naa leen di wax tuuti rek te xam ngeen ñi man ñun bokk ñun du def ñu politique politicienne lu ñuy wax rek dañ koy teg ci lu leer nañ teg ko ci chiffre teg ko ci date teg ko ci fet moo tax coow li coow bëri la saa su Ousmane Sonko génnee wax coow li la bëri waaye du mujj fenn parce que lu ñu leen wax rek dëgg la jàppale ko Thiès capacité maa ngi koy dooree ci lan mooy potentialité Thiès ci wàllu ndox ndax xam ngeen tubaab dafa ne l'eau c'est la vie démb maa ngi fanaan xomool tey ma xëy dem lu waat fekk foofu yëpp ndox amu fa ñu ne ma nii lañ jotee ci coupure ndox coupure suba coupure guddi Thiès bokk na ci région yu ëpp potentiel ci li ñuy wax ne natt souveraine ci ndox moo tax bu bëri ci ñu wër Thiès boo gasee tuuti am ndox mën na arrosé say garab mën na def maraîchage kon dëkk bu mel noonu warul woon am problème mu ndox Thiès potentialité économique am amul région bu ko ëpp ndax Thiès am na ci possibilité def maraîchage ak li ñuy wax culture fruitière li ëpp ci li ñuy consommé ci fruit mi ngi jóge ci région de Thiès. kuy romb ci yoon bi rek di gën a def fii ba Pout ba Sèye bi Kotaar foo taxaw mën na jënd ay fruits loolu di beneen potentiel ci Thiès Thiès am également ci zone centrale capacité yu rëy a ci li ñuy wax bassin arachidier mooy benn wàllam dafa nekk ci bassin arachidier Thiès am capacité ci zone sudam li ñuy wax culture maraîchère Thiès am deux cent kilomètres de côte xam ngeen Sénégal moom la sept cent seize kilomètres de côte la ñu am sept cent seize kilomètres yooyu Thiès am na presque le tiers mooy plus de deux cent kilomètres de côte diggante li ñuy wax la grande côte mu commencé Kayar ba egg Mor Mboro ak li ñuy wax la petite côte nga xam ne mooy côté Mbour kon lañ fa mën a def ci napp kenn xamul nu mu toll lañ fa mën a def ci tourisme kenn xamul nu mu toll waaye Thiès mënul bénéficier de ce potentiel économique parce que dañoo nekk ak ñoo xam ne amuñu benn vision ci politique touristique waaye dañoo nekk ak ñoo xam ne. ni ñu ko defee ci yeneen secteur dinaa ci jëlee aussi noonu lañ jaay ko ci ay accord de pêche yoo xam ne andiwul Sénégal dara ba tey mënuñu am accès à nos propres produits agricoles ñu ne ko Thiès am na capacité artisanale ak culturelle ndax ku dem xam ni waa Thiès mën nañ leen wax lu ne. waaye artisanat mën nañ ci lu bëri ku dem biir xool ñi def foofu ci poterie ku ñëw fii Thiès def village artisanat gis li fii def xam ni potentiel artistique bu Thiès potentiel bu ama am solo te malheureusement valoriser ko ni ñu ko waroon valoriser ba tey secteur yooyu yëpp ñu ngi en difficulté kon région de Thiès potentiel minier bu Sénégal li ñuy wax industrie et mine jigéen ñi ma jiitu léegi nee na industrie Thiès fleuron ay fleuron la ci amoon waaye ñëpp gis nañu Thiès amatul industrie. barki dem ko jaay la ñëw fii def inauguration en grande pompe benn usine waaye ñëpp xam nañu ni suuf saa lañu intéressé woon waaye mu doon lancer ab usine tey soo seetee ci wàllu mine mine industrielle muy phosphate di calcaire. di bari ci diggante allukaay jogo ba tey ba pratiquement bu traversé Sénégal yëpp ñu ngi fii ci Thiès ci wàllu mbir soo seetee ci wàllu li ñuy wax minéraux lourds yi muy zircon bi ak titane bi yéen ñëpp dégg ngeen ñuy wax jogo lañ fay jëlee ci zircon kenn xamul nu mu toll te waa amuñu ci dara waa Sénégal amuñu ci dara soo seetee li ñuy wax les pierres ornementaux ak industrielles mooy cimenterie yéen ñëpp gis ngeen barki dem bu nañu fii cimenterie lan lañ ci am dëkk dëkk dëkk mu war a dellu ci Sénégal ak mu war a dellu ci Thiès parce que politique bi ko accompagné moo baaxul kon potentiel bi Thiès kenn xamul nu mu toll waaye li ci gën a mooy la dal feneen ak feneen ak moo ñu dal fii ci Thiès Thiès mi ngi am cinquante et un virgule sept pour cent de taux ci population boo xam ne lu ci ëpp soixante deux pour cent c' est te trente quatre pour cent yi ñu ngi diggante quinze quinze ans et quarante ans kon suñu ne dee chômage bi bëri na ba cinquante et un virgule sept pour cent xamal ni jeune Thiès ñu lay bëgg a dee bi fu mu am rek la ci ëpp ci population dal wala ñi nga xam ne ñoo toll ci pare jàng wala pare jàng métier war a bëgg a te duñu gis liggéey duñu am lu ñu suturloo duñu am lu ñu sancee duñu am lu ñu jàppale seen waa kër lii mooy problème bu Thiès problème yi nag mënoon naa ko continuer parce que liste bi gudd na waaye damay bañ mu mujj soof jotaay bi parce que waxu waxu économie léeg-léeg nit ñi sax dañuy ñelaw waaye ñun ñii defee politique dañoo jàpp ni dafa jot bu ñuy wax ak askan bi nañ leen di wax lan mooy problème Sénégal ñëw def mu bàyyi ko mu tee jigee nit ñi tàcc nga dem yomb na ñun lan mooy suñu yéene ci Sénégal suñu yéene ci Sénégal mooy li ñuy wax remettre la dignité humaine au cœur des préoccupations politiques suñu yéene ci Sénégal mooy doomu aadama bi nit ki nga xam ne yàlla li ko bind daf koo fonk jox ko valeur ba jël ko teg ko ci kaw malaaka teg ko ci kaw diine teg ko ci kaw yeneen biir nit kooku dafa am valeur ak ku mu munti doon ak lu munti am ci am ak luy diine. ak luy askanam ak ban région la dëkk ci Sénégal nit kooku dafa am valeur te loolu mooy cëslaayu politique mooy lu ñuy def ba l'action politique nekk au service des êtres humains ba l'action politique nekk au service du peuple mu ute loolu ak li ñu gis tey mooy action politique au service des hommes politiques kenn ku nekk di fexe mu lay buuxante ba placé wu gannaaw ba placé wu mu lay def ba am man ak sama njaboot ak samay mbokk te am googu weesuwul mooy alal réew bi ma dégg naa ko def dugal sama poche loolu mooy suñu yéene ñu ci Sénégal wallaahi def ñu politique pour am alal def ñu politique pour am daraja xaaruñu dara ci politique lañu dugal ci politique. defe naa Sow wax na ko léegi politique jaamu yàlla la mooy nga joxe sa temps joxe sa alal joxe sa xam-xam sacrifier sa vie de famille pour que sa askan baax loolu la ko aw askan bu ñu demee ba koo tudd politicien ñu ne la wax du wax du jël lu mu moom du jël lu mu moom du téye du jël lu mu lu mu fas yéene def foo tudd politique ay contre valeur la cay wax dem nañ ba Sénégal tey foo tudd politique ay contre valeur rek la cay wax duñ la ci wax dara lu baax aw askan bu tollee foofu dafa laaj ñu taxaw xoolaat suñu bopp te dafa laaj ñu taxaw xam ni système bi baaxul te système bi ci boppam la ñu war a sopp système bi ci boppam moo baaxul du problème nit dong suñu combat nag loolu la suñu yéene wax naa leen ko c' est de replacer l' être humain au cœur de politique moo tax ci téere bi ma li ci ëpp solo mooy dama leen ne am nañu yéene ñun def une politique sociale inclusive mooy sénégalais bu nekk sénégalais bu nekk am un minimum ci alalu réew am nga liggéey amoo liggéey sénégalais bu nekk boo demee ba nekk majeur am un minimum boo xam ne war nga ko am ci alal réew xam ngeen loolu xam ngeen loolu da ngeen koy dégg tout le temps ci baa bi dégg ngeen ñuy wax ay RNA ñoom seen ay France lu mën a am la Sénégal bii waaye dinaa leen wax après naka lay amee suñu yéene mooy fexe ba richesse nationale bi ne am nañu ko nee am na ñu PIB boo xam ne dépassé na léegi six mille xaw ma ñaata milliards naka la ñuy fexe bu nekk am un ñu minimum buy assurer sa dignité bu weesoo loolu li ko njàmbarteem ak engagement bi jox moo koy permettre mu yokk ci leneen ba am matuwaay yi mu demale boppam am nañu yéen sénégalais bu nekk am couverture sociale mat sëkk ndax am réew boo xam ne tey quatre cent mille sénégalais sur les quinze millions de sénégalais ñoo am couverture sociale li ñuy wax système de protection sociale loolu musiba la li ma wax foofu mooy sénégalais bu feebar am nga xaalis amoo xaalis soo demee ci hôpital ñu faj la sénégalais buy liggéey te xeebuñu ci kenn ndax métti bi sama téye dama ne ki ñuy tuddee mbindaan wala ñuy wax domestique wala li ñuy wax jàng yi ne ci kër dafa am droit à la protection sociale ndax kenn ëppul lu mu koy liggéey ci dëkk ñun bu ñu koy dem suñuy bureau huit heures wàcc ci cinq heures moom six heures du matin yow la di liggéey ba vingt deux heures ma ngay rafetlu ko. te kooku amul benn protection sociale.